dafa melni sama morom bax bëgg ma sha allah la ñëpp ku bax la muñ di sëy rek ta Yalla tax bëgg ñëpp uuf ñëpp ma ngi koy ñaanal gudd fan di ko ñaanal wër lepp lu mu fi jeex ci ëtt yeen gi rek Yalla nokk Yalla may ci barke Seydina ma sha allah ah, kontan na ci mom de billahi wallahi ko xamne day jël di la ci digg la la mom amoo lu di ko diko di mom da moy suñu mama national suñu xarit suñu lu ne fu ne macha allah. maa ngi leen di nuyu yéen waa Dak Médina yëpp di nuyu sama njaboot gi yëpp yéen ñëpp ma ngi leen di nuyu di kontaan nag trop ci bés bi vraiment parce que nga nga sa anniversaire sa date d'anniversaire ñëwaat am na ñu bari ñoo xam ne amuñu lii daal xam nga sama xol dafa tooy daal moo man daal maa ngi maa ngi maa ngi ñaanal ñëpp daal ñu ma nekkal ndax lii mënoon na leen cee bañ a fekk mënoon nañ ko bañ a def mais quand même lii day wane ne rek ne am nañ yëg-yëg ci man di leen ñaanal nag di ñaanal sama njaboot yëpp yal na leen yàlla na ma fi yàlla bàyyi xëy na dégg kenn xamul kañ mu ne mun na mais li may ñaan yàlla mooy yàlla bàyyi ñu fi ba ma fekkee ñëpp ñii di am jëkka ñii di takk jabar waa dag medina nag dama leen di bàyyeeg yàlla rek parce que mënoon nañ jox nañ def teg nañ ma fiñ ma war a teg daal jox nañ ma place jox nañ ma cër teg ma fiñ ma war a teg maa ngi teeb mënoon na demee neneen mënoon nañ ne dañ fiy ñëw rek di liggéey ku ni téye sa bopp mais defuñu loolu waaw wante nag maa ngi leen di gërëm di leen sant yàlla nañu fi yàlla bàyyi rek ba ñu fekk yàlla nañu fekkee lépp daal waaw di gërëm sama doom particulièrement moom di ko sant waaw ndax yi day won day wone ne am na daal foo xam ne toll naa ko fa waaw te maa ngi koy gërëm di ko ñaanal di ñaanal Sabel Sabel sama doomu rakk la mais moo moom ak maam Baasin maam Baasin mënoon na sumb lii mu génne ko ci mais defu ko Xadi itam maa ngi koy gërëm moom sama doom la lii mënoon na leen ci bañ a fekk mais ma li ma li ma sama xol daal man rek ko xam yàlla nañu fi yàlla bàyyi rek ba ba ba ñuy fayante lii ci kaw bànneex di gërëm itam binteña particulièrement binteña dama nekk ak maam baasin muy sama doom de sabel sama doom la xadi ñaa sama doom la mais xale di ngay di nga nekk ak ñoom mu am koo xam ne moo la gën a takk maa ngi gërëm binteña parce que jàppale bu ne mi ngi ma koy jàppale jàppale biir ak jàppale biti nag lu nit yëg ak lu nit yëgul maa ngi koy gërëm di ko sant yàlla nañ fi yàlla bàyyi daal bu ma fekkee ñëpp seen njëriñ seen ñu gudd yàlla may ñu gudd fan wér di gërëm nag ngërëm gi nag kenn moomu ko ko dul Papa gi muy sama borom kër kooku maa ngi koy gërëm di ko sant lu ma mën tey rek ak fu ma toll tey rek moom la moo nekk sama ginnaaw su du woon moom li yëpp du am dara du am lépp lu ma ko teg tegoo na ko lu lu ma bëgg bëgg na ko lu mu màtt su ma ko nee bàyyil mu bàyyi ko lu mu fekk ma ci moom moo yoyoo ngërëm li wante yal nako ko yàlla yokk kàttanam yokk taxawaayam may ko wér wérle ba lépp mu fekkee bu bu dara bu euh, nettali dara ginnaawam lépp na ko fekkee su fekkee lépp incha allah dina xam man fan moom fan la toll ci man yal nañu yàlla yal na ma yàlla jàppale rek ba ñu fekkee lépp di leen jërëjëfal